passé li ñu man ñu ngi koy def waaye mënuñoo mënuñoo dajal lépp ndax lépp a seer kenn kuñ ci ab añ añ ba sax du mat nga feer mottale añ ba bëgg a def reer xam nga ne métti na ci jigéen ñi te liggéey bi amul solo xam nga ne xoolam gerte amul solo fukki kilo gerte yoo xooli juróom fukki dërëm lan la ciy fay te man nga caa xooli ñaari fan muy door a jeex fii nu nekk dafa bari inondation dañuy am ndox tey jii bu taw bi gënu na bari fii nu taxaw tey doon fi taxaw ndax ndox mu bari suqali ko ba mu ban ne koñ yëpp ndax ñi fi nekk ay jàmbaar lañu muy góor di jigéen di mag di ndaw ñëpp ay jàmbaar lañu suñu amee luñ jàpp ba mën a liggéey rek danañ liggéey ay liggéeykat dong a fi nekk jeeg ju ndaw jàng fi jeeg ju mag jàng fi nun maire yi nooy tey xale ya jeeg di dem ci marché yi di liggéeyi di andi di ñu jox luy lekk te lekk gi métti na dund bi métti na lépp métti na nu bëgg na kun ci jàppale bu baax ci ay financement yu baax jàppaleen ci suñu koñ bii wutal nu ay lamp nu mën a leer ni ñëpp tey fii bu 10 heures jotee rek benn jigéen dootu ñu mee génn ndax day lëndëm lëndëm gi nag bëgg na leer goo xamante ne macha allah ku bëgg a dem dem ku bëgg a xool xool ku bëgg a gis-gis loolu la ñu bëgg ku nu jàppale daal la ñu bëgg mbàkk balaay sax. mu mel ni ñun lenn rek lañ bëgg muy ñun danoo bëgg réew mi danoo bëgg dëkk bii ñu nekk muy Touba lenn nag lan xam ni muy ay sën lan ay ndaw lan képp goo xamante ne si pare nga pour jàppale ñu. ñu nit pare nañ pour jàppale la ndax ay ndaw lañ yu am jom am nañ suñuy carte d'identité yoo xamante ni si fu woote jotee mën nañoo dem woote ji yëpp lañu ci koñ bi nag lim banqué dafa bëri ndax fu toll ni Daaru naan ba Touba dee ba léegi Daaru Marnaan a ngi nii gisuñu ci benn avancement boo xoolee lamp yi koñ baa ngi lëngëm a lëndëm agression yi bëri fi lépp bëri fi ndaw ñi amuñu liggéey ndaw ñi amuñu liggéey boo xoolee fii da ngay suba gis ndaw ñu toog fii nii loolu nag doxalut am réew am réew li ko doxal mooy mooy ndaw ñiy liggéey kon nag ñu jàppale ci liggéey bi jàppale ñu itam ci koñ bi mu am ay lamp am ay poubelle am ay bare sun maire yi bu ñuy bale maanaam koñ bi man koñ bi maanaam mën a am avancement bu baax a baax ndax maire yi bu ñuy bale fii dee métti lool duñ am amuñuy bale yu mat amuñuy raddu amuñuy poubelle amuñu tamit leneen nag lépp loo xamante ne si koñ yaa ngi koy am fii ci Touba ñun amagul ko kon nag Mbacke Balla la bu ngeen paree pour jàppale ñu pare nañ pour jàppale ñu. pare nañ pare boo ko bëggee léegi suñu yaa ngi ngi ne carte d'identité yi wan ñëpp mën a dem woote ji. boo ñu jàppalee ci li ñu bëgg danañ la jàppale ci li bëgg. di jiital ci nuyoo bi tamit tànn Daba Seye mi nga xam ne dañ koo xam mu yàgg ci APR di liggéeyal APR kon tànn Daba ñu ngi lay nuyu di la ziar di fedd li suñu kóllëre ak yow waaye taan daba tey taxawatuñ mbubbum politique mbubbum sëriñ akum dongaam lañ taxawee dañoo summeeku jël mbubb mi ñu soloon muy moom politique teg ko nee fas yéene sukk ci sëñ galas ni mu bëgg ñu def ko lu mu bañ ñu ba fa ndax sëñ galas mooy candidat bu baax bi nga xam ne ku ko yóbbu ensemble dina defar ensemble sëñ galas mooy candidat bi nga xam ne xeexut xuloowut tëjuti buntam fayuti téléphone am kooku mooy doomi sëñ Baara ji te bii nga xam ne mooy mooy bulletin bi kenn ku ne war nga ko wote ndax bulletin bi nga xam ne Serigne Gass da cee nekk waaye Cheikh Abdou Bali moom sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mi ngi ci ñun murid yi nag ndigal lañ war a wéyee ndax murid bu ne ndigal kenn ku ne dangaa bàyyi sa dëkku maam ñëw ci dëkku maam yi sëñ Galas kon ndigal lañ war a wéyee ndigal loolu ñu war a wéyee mooy soutenir sëñ Galas ba yóbbu ko ensemble sëñ Galas xëccoowul ndomb ak tànk day defari Touba moo ko yóbbu ensemble ndax li ko maamam Serigne Touba defal moo ëpp ndomb ak tànk waaye dafa fas yéene dem ba ensemble toogal leen fa di wax Macky Sall li manque ci dëkk bi di leen xalaatal di leen indil sëñ Galas nag moom kenn mënu koo fay ndax ba mu nee wii ba tey néewagul non. Ah, soxna Daba Seye ñu ngi rafetlu taxawaay bu baax a baax ndax xam lañu ci wet sëñ bi te Serigne Fallou moom buñ ko defee ci te de liste yi ñun waa Touba ñoo ko war a jàppale ndax ku ne xam ne sëriñ Alaaji Baara ak digganteem ak président Macky Sall ginnaaw yàlla bu jotee ci réew moom la sëriñ Gass Kaltoum nag avant muy dugg ci lii da cee tàggu ay kilifaam bañ jox ko ci ndigal ndax ko ñëpp xam liste boo xam ne sëriñ gas Kaltoum moo ci nekk ah, ku ñuy wax Cheikh Abdou Bale Mbacké moom si Cheikh Gaynde Fatma nekk ci Makhtar Diop nekk ci sëriñ Cheikh Bara Gueye meeru Daaru Nahim nekk ci Mouhamed Cissé bu Gédé nekk ci yi Diouf bu Mbàkke nekk ci Mariama Diallo bu jànnatu docteur nekk ci liste boobu jàpp naa ne ñun waa Touba dañoo war a fexe mu jàll ndax bu jàllee njëriñu dëkk bi rek lay nekk surtout yéen jigéen ñi nga xam ne Mimi Touré moom la président jiital ci list bi kon fàttuwul jigéen ñi fii nag ku fi falu jigéen ñi ñoo la fal te président def na ci côté jigéen na yu am solo muy loo xam ne mi ngi ci dëkk bi ndax hôpital niveau 3 bii ñu bërk dem tudde ko si Ahmadou Khadim autoroute Ila Touba bii 30 bii nga xam ñu ngi koy liggéey nga xam lamp yi ñu ngi koy monté balaa màggal mu tàkk ak maanaam jigéen ñi nga xam bu ñu daan opéré seen borom kër yi di naan dañu daan fay loolu lépp président dindi ko kon war nañ koo jàppale bu baax a baax pala sisam sesam mag ñi nga xam ne dañoon toll ci juróom-ñaar fukki at nga xam ne am na bu ñu yóbboo seen photocopie d'identité ci hôpital yi seen fay gi ñu waroon fay dutuñ ko fay ku ne xam na ne jalis ku ko masa am dakaar nga koy defe ji ubbi nañ fi benn centre jalis ci jantu bu mag boo xam ne kenn soxlaatu dem dakaar ñu ngi ñaan nag yàlla defal ñi wér goo xam ne kenn du soxlaa dem foofu waaye nag euh, doom doomu aadama ak dogal yàlla ñooy ànd président xam loolu def fi loolu kon marché Ocass bii ku fa dem président ma ngi koy liggéey fas yéene defar lépp ay tëli ku ne xam ne ne maanaam jëmmi ndox mii nga xam mooy nab bi 18 forage mi ngi koy def ci dëkk bi fi may wax ak yéen lu mat juróom-ñaari forage bënn na ngir kër yi ndam bi nga xam ne sonal nañu ba yàq sañ kër yi président yëg loolu dëkk bi itteel ko kon ñun waa Touba amel nañ ko njukkeel ba ngeen déggee mun taxa ci màggal gi bi mu jàllee ba xam élection yi jàll na dane woon day demoon na ba jàpp ne soxlay doomu aadama dootu ko ñaan waaye nag jomu doomu aadama daal may dab ma jël mbiram Macky ak sama mbir jëbbal ko Serigne Touba barki démb bu fi Mimi Touré ñëwee moom mu waxaat ko waat ko booba Serigne Gallas Kalto mi ngi toog ak doomi Touba ya nga xam ñoom lañ tabb mu leen sama seen liste bi seen jotaay bi am naa ci yaakaar loolu kat wax dëgg yàlla yaakaar jooju ñun taalibe yi Serigne Touba yi ñoo ko ma a mottali li ma leen di xamal nag mooy suñ bëggee assemblée bu jag boo xam ne danañ taxawu waa Touba di defaanar waa Touba nañ fexe liste bi jàll. assemblée boo xam ne day am ak dal doo fa gis saaga doo fa gis xeex nañ fexe surtout Serigne fallu bi na jàll ndax yéen jigéen ñi koo dégg mi ngi naan damaa bëgg doom ji tudd Serigne fallu ko a jaaxle woo Serigne Fallou kon bu ñu seetaan mukk sëtam bii ñu def liste muy am gàcca nañ ko wooteel. le 31 nañ ko wooteel woote boo xam ne musta am ndax li ma leen di xamal na ngeen ko dégg bu baax a baax président Macky Sall buñ ko wooteelut dina am majorité te ñun waa Touba war nañ cee bok ngir ni ko sëñ bi def ndax kat képp ku liggéeyal sëriñ Touba nu ko sëñ Blaat waxee woon ak sëñ Fall waxe ko sëriñ Saliou waxee ko noonu sëriñ Sidou Moutar waxee ko noogu sëriñ Mountakha mii nit ku baax la ñi ngi ñaan suñ borom yàggal ko fi dañ na ci réer xam na li muy wax te damaa jàpp ne li waxoon président Macky Sall si mbir jëbal naa ko suñ Tuubaa ñaan buñ jël si waat mu ne ko fa ma la dénkaane woo tey maa ngi la fi dénkaane kuñ ko waxoon sa maam bis boobu da koy màggal kon nag nañ fa yéene jàpp ci suñ kem kattan nañ nañ weesu ay nax ñi nga xam ne dañuy dugal ci lu dara ñu teg leen ne jël na si baax bi dugal ci ñun daal ñu ngi sant ñu ngi gërëm ñëpp. jërëjëf jërëjëf